Elle la prison ah comme on l'a débattu comme ni ñu ko waxee woon sànq ah ah mais kii nu mu waaye crise maanaam Sénégal mooy dëkk boo xamante ni chaque jour. Hmm? ñu indi la benn affaire boo xamante ni au lieu que yi war a jooy dañu war a reetaan quoi en ay dégg au ñu jooy dañu war a reetaan ndax au lieu ñu jooy mooy xam nga lii dafa war a ay xale yoo xamante ni ay ay xam nga sàggane hmm? xam nga loolu jar naa jooy mais lu li fi jararee xam nga mooy lan mooy le fait que yow nga jàng ba ñu ne yow ah, médecin nga hmm? kon normalement yow affaire de ay santé yooyu war nga ko xam hmm? léegi ñu ne journaliste nga tamit xam nga journaliste moom mooy ki gën a cultivé ci àdduna bi léegi ñu ne sa papa ancien politicien la woon damay am ay moyens yaa ngi war a mën a xam yan nit nga war a sax loxo loxolool pour lijjanti wàllu moyen kon xam nga kon tous les conditions doivent être réunies mais malheureusement looy gis mooy à chaque fois nit yooyu noonu ñooy def scandale yu gën a ci si seen ay domaine de si la defee ay ay toj-toj laay wax yaa dégg mais nag te seen ay toj-toj yoo xamante ni ñëpp ngi fekkee di seetaan de maam kenn ay bett na moom kenn ko wax ndaxte ñëpp ñëpp ngi seetaan di déglu yor seen ay nopp di analyser ah, di commenter chaque jour état bi tamit am na renseignement yëpp yaa ngi dégg yëpp la am képp kuy dëpp kuy ubbi ay pouponnière ah te amoo bi xam na ko. ku am autorisa am am ku wax dara ba bu ko neex moom moo xam heure ban xam neex na hmm? ba ñëw mooy heure ko neex mooy heure bi nga xamante affaire xam nañ la cool na quoi instant yii moom cool na daal. mooy mooy cool na. mais moom lay neex na mais moom état moom moom mooy xam moo xam heure am. Mm. moom ay moom. nee la maa diw ñëpp xam nañ nga moom fu ko neex lay far état moom mooy lijjanti boppam day ñëw na la yow bisimilah amoo autorisation si mu ne ay enquête ñu ne léegi am na six bébé yow dee nañ buñ suul leen quoi yaa ngi dégg. si ay conditions yoo xamante ne ñu ne la ay conditions de malnutrition affaire yooyu noonu de de de dénutrition xaw ma mu nekk loo xamante ni maanaam mooy li mu la dañ ko war a jooy mais dañ dañuy ree mais retaanuñu ndax du nee la Madio Diouf nekk si jafe-jafe ndax xam nga kër yéen ko mu nekk si jafe-jafe parce que bu dul dara yow mënoo nekk si réew mi ay années yaa ngi dégg di di di occuper place médiatique di. participer si affaire yi gars yi dina nga am ay followers ak vraiment gars yi ba dina ñuy bëgg la a ëpp sax ñu la bañ en parce que yaakaaruma ne Sénégal am na ñu bañ réellement Diouf quoi kon yow mën ne ay dañ lay fexel mais en fait yaa fexel sa bopp franchement parce que yow yaa woote loo xamante ni amaana maanaam dafa rëy nga tuutil ko yow peut foog ne mën fekk ne dafa laaj loo xamante nekkul rek moyen kese la laaj parce que nee nañ benn bébé rek dangay dem si kër ñëpp ñëpp ay ñëpp ñëpp si pouponnière bi lañ bokk. Mm. ndaxte yaayam rek mënu ko téye journée bi yëpp. papa papa ji waxit noonu tante yaayam fii mag ñëpp ay jàpp si liggéey bi léegi nga yem ñu yor 48 bébé yor 4 xaw ma 4 4 4 4. 4 nus yu lay gàpp rek. ah léegi dèjà rek loolu maanaam ku ko wax dina ne kon xanaa ku nekk yow ba 10 bébé ngay di jënd par jour. Mm-hmm. mais loolu dafa metti maam loolu day mel na ngay exploité nit ñi en fait si loo xamante ni daal. Mm. maanaam c'est maanaam mënul nekk sax. même boo leen di exploiter sax ñoom même boo leen joxoon moyens yëpp sax nañu nekk au fur et à moyen à chaque instant si si wàllum si 48 heures si 4 mois mënul nekk. et dire que les conditions si gën a mooy bébé yi ñuy tudd yëpp ndeysaan yi si ñu si bëri ay tur yu kawe lañ leen jox maanaam daal ay kilifa lañ leen tuddee daal hmm. xam nga. rek kilifa yoo naa waroon nañu làmb seen poste sax jàpp si pouponnière bi sax pour ma topp. mais lu ñu si njëkk fustigé lenn la mooy le fait que nga ubbi pépinière tuddee ko kër yërmande après ñu fekk fa benn acte boobu acte bu ñàkk yërmande la yaa ngi dégg mooy sàggane ay xale ba ñu ba ñu dese ay yax yaa dégg te yow ku la gis nga am yaram waaye waroon nga fexe ba yow yaram bi nga am nga waar si booy voilà li ngay dundee kay waxuma li nga dundee mais mais dafa loolu dafa reetaan na parce que yow mënoo yow lekk ba fees dell la yow ñu jox la ay bébé yow nga sàggan ba bébé yi ñu fekk ñu fekk la ñu jeex. te yow li ngay lekk moo ëpp foofu. ñun ñii ah, nekk mais ba pare nga jox leen ay tur yu kawe. yaa ngi dégg fu may waxee kon ñooñu nga leen tuddee rek waroon nañ jàpp ci ci liggéey bi ngay def. léegi kon kër ya ma ne ma man dañu ko. non mais y avait y a y a des parce que am na benn benn sortie bu nu gis am ku ko def suñu benn naataango seen benn naataango du moins voilà mais mi ngi naan booy dugg su fekkee joxe woo don doo dugg. Mhm. don en espèce en espèce de l'argent voilà mu ne ma wax lu yéeme sax laay wax mu ne. yaay am na am benn yaay xale def naa moo porté plainte ba affaire bi gars yi. jot si kër benn étudiante la jëli doomam ñu ne ko da ngay joxe. 5 millions mooy xam nga maa ngi la première le meilleur sujet bi. parce que elle a carrément affirmé que deful te yàlla rek a tax. Ah, on peut dire ça déjà rek kër yërmande bu dee yërmande ngay woote xam nga gars yi des fois dañoo tàmm ñu Sénégal di jël ay termes yoo xamante ni xamuñu lu muy tekki. franchement après ñu dañ koy utiliser à des fins yoo xamante ne wala seen ay propre business boobu am nga yërmande boo ko waxee yërmande bàyyi du yëfu nit yërmande yëfu suñu boroom la yàlla mooy yërmande da nga jël tur yàlla boobu ñuy woowee yërmande xam ne moom si lay daw ci lay maam dawalee yi maam nan laa ko mën a waxee si lay jégalee ñëpp sax laay wax mm. hmm? nga jël ko yow tuddee ko sa sa bërëb te loolu taxu ko jóg yow di laaj ay 5 millions. waay ñoo xamante ni dañ la jëloon seen doom peut ci ay état yoo xamante ni état de folie la. Hmm. dénk la ko yow nga leen di laajaat pour delloo leen ko loolu acte de ñàkk yërmande la. loolu woon ba léegi sénégalais nu muy dundee quoi dañuy hmm. utiliser benn terme boobu du ko tax a jóg ak li tax mu jël tuddee terme ak xaajul bay bokk. moom day dénature maanaam dañoo dénaturer terme yërmande ci camp bi hmm. moo tax kër yërmande moom dañ ko war a effacer war tudd na ma du li état bi def tëj ko c'est bien. donte état bi moom dafa sàggan ndaxte dafa bàyyi ba ay toj-toj am mu soog a ñëw di ko tëj waroon nañ si tàmbali ba mooy di may fustiger en deuxième lieu mooy booy ubbi genre affaire yi da ngay am kayit. yaa ngi dégg ko mu yor ay kii woom ay daaraam di ñu koy indil ay nit yi nga xamante ne dañoo ay problème de drogue ak yooyu xam ko tout au début gars yi naan bu baax la liggéey bu rafet la ñëpp di ko bëggee mm-hmm. yaa ngi dégg ñu xëy un bon dégg ñëw fa. dañoo jàpp ay booy yu doon sàcc ay moto fekk ne fekk nañ fa sax ay booy yu doon jaay yamba après na léegi gars yi condition yi ñu fekkee gars yi dafa doy waar ba ba jàpp booy yooyu bindal waaye jiñ leen lu ne tëj leen fi presque ay un an et nangam nangam nangam yaa ngi léegi pour walla ne maanaam sa à dire parce que nee nañ amuloon kayit beeg respecté wul norme yeeg <coughs> ma ne depuis ay dix ans mi si réew mi yaay toog ba tey ñu koy lijjanti même cas bii la tamit. dañuy gis benn nit bu ubbi benn bërëb amul kayit di ko defee noo xamante ni du noonu état bi xam na ko bu baax a baax nit ñi tamit xam nañ ko bu baax a baax ñëpp ne cell ba benn jour benn classement am fa ñun ñëpp. affaire bi tas parce que li nga wax Abdourahmane dagguma la c'est très important parce que tu parles de Serigne Modou Kara euh, moom maison maison de correction la woon je pense parce que on peut dire que muy maison de correction muy pouponnière vraiment war na am ay këyit comme ça li boo boo xalaatee ne état mi ngi lay bàyyi xel di nga jomba def yu bari mais parce que état maam moom rôle état bokk na si di délivrer ay këyit nit ñi nga xamante dañu bëgg ubbi ay business wala ay ñu munti doon ay yaa xam loo bëgg ubbi mais boo ko bëggee ubbi bu nekk loo xamante ni dafay laal maanaam dund doomu aadama rawatina ay tout tànk xam ne moom dafa sensible da nga war a wane ay kayit yu leer nañ yoo xam day tax ñu mun laa wóolu yaa ngi dégg sax ay ay mesures d'hygiène sax war na faa mën a am gars war nañ ñëw di visiter bërëb yi ndax nekk na si norme sax mais lii depuis des années mi ngi am si réew laa lay wax ni amul kayit amul dara nit ñi di jël seen doom di fa yóbbu Ndella di toog si kanam télé di di si wax yaa ngi ñëpp di ko di ko gis. yaa ngi dégg ñenn yi di ko apprécier xam ba tey mu cool man na may waxaat en troisième lieu mooy que tey ñi nga xamante ni ñoo ko doon apprécier nañ ko ne di ko apprécier quoi yaa ngi dégg. Mm-hmm. bañ koo bañ koo déprécier quoi parce que xam lu tax. parce que maanaam instant yooyu noonu ñu ko doon apprécier yëpp yëpp ñu si bari xamoon nañ ne kii ni mu ni muy def nii ah si yoon munu ko yaa ngi dégg ala ala ala ala long sax maam da si doon demee benn genre sax ngeen baal ma si kàddu gi benn genre foni parce que am na la boo koy def di toog si ay écran rek di si wax sax pour man dafa yenuwul maanaam parce que bu dee yow da koy da nga siy jublu pour def lu baax jarul sax nga koy biral mu nga ko nëbb ndànk parce que lu baax dañ koy nëbb mais boo toogee ba di ko publicité di si wax loo xamante ni da siy laaj ay xaalis wala may gis ne lii kon bu yàgg gars yi waroon nañ xam ne kii day business si affaire bi si lu ma yaakaar quoi mm-hmm. que du ma ne da si business directement mais loolu lay ndur dans la mesure quand tu dis à la dame ne boo ma joxu cinq millions ma la joxaa sa doom loolu ça relève du business ay dée imagine toi ku la ku la ne tamit mën keneen mën na ma ko na bu ñu ko meree rek ko kon ne jàppale nga xam ne tamit peut-être que dafa juum moom it yaa ngi dégg parce que xam nga boo nekkee si réew boo xamante ni kenn du kenn maam dindi si la ñuy def mm-hmm. ba keroog nga leen di jubal di leen teg si yoon yaa ngi dégg moom la ngay sane moo jot amoon na ñu fi jaaroon gaa yi jubbanti leen teg leen ci yoon après buñ buñ jugee si loolu génn na génn nañ sax si si wàllum yooyu ñu doon yëngu parce que état bi da lay teel a xamal na ne lii moom da nga koy bàyyi. instant yi moom loolu moo ko dal moom lii même bu ñu ko joxaatoon kayit si lii sax da ko war a bàyyi parce que da kaa xaw ma médecin la xaw ma du médecin mais lii du domaine am quoi franchement parce que pouponnière moom lu mu dee war na am ay personnel bu am doole bu fay liggéeyee ay personnel moom surtout si wàllum santé parce que xale moom bu koy yor. waaw war nga bi ngay war a njëkk a seet mooy mooy sa wàllum santé quoi surtout bu nekkee ay bébé ay nourrisson et surtout nag moyens yi léegi mooy li may wax mooy yow mooy mënoo nekk si dëkk bu nekk Sénégal nga ne yor nga rajo hmm? yor nga ay waaye du ma ne doo borom xaalis tamit dama naan borom xaalis nga sa bàyyi ko politicien bu mag la woon yow it maam toute ta vie si télé yi nga nekk xanaa doo ma ne yow xamoo naka la ñuy lever fonds tamit am nga ay connaissance am na loom soo ko bëggee même boo demee si état sax soo soo lëkkaloo ak état état mën na la jàppale. mais malheureusement gars yi am na loolu bu ñu koy def bëgguñu kenn xam ci dara. ndax dafa am lu tax ñu koy def mooy dañ ciy ut dara léegi dara boobu ñuy moo tax du ñu bëgg kenn du kenn dugal si bëtam kenn dugal si la dañuy bëgg mu nëbbatu mu nekk ci lëndëm daal ñoom ñu nekk di ko lijjanti di si am li si am ci suuf. mais bu nekkee lu jubati la lu mu yàgg a yàgg day feeñ. yaa ngi ndaxte gis nga fenn du pédia bu gars yi di wax c'est la booy def lu dëgguwul wala ngay def lu yenuwul maa wala lu teguwul un bon jour viendra hmm? lépp li nga siy def lu lu lewul wala lu jubati dina feeñ wala gars yi nañu bàyyi seen mascarade yi xam nga Sénégal dëkku mascarade la maam c'est-à-dire da ngay gis nit boobu day xëy génn si yi di woote bonne volonté fekk au lépp lu muy def hmm. dërëm moo ko tax a jóg sànq kii Ibrahima mi ngi wax si deux cent candidatures yu gars yi déclaré woon hmm. maa ngi ko bëgg wax ne la deux cent candidatures yu si bëri ay dóor la yaay si bëri dañuy déclarer candidature xam pour lan pour après bu bi ñu demee ba si biir xool ko ñu jàppale pour après kooku bu faloo am lu mu leen defal sa gars yi dañuy business di carte rek maam saa yi ñun malheureusement dañoo nekk dëkk boo xamante ni au lieu que ñu am ay kilifa yoo xamante ni maanaam dañoo exempt de reproche ay nit yu jub lañu malheureusement ñun ñuy kilifa yu bëri dañoo jubadi est-ce que kay si woote kii woote kilifa sax laa wax dem ba am ba pare dañuy dem ba am yenn âge yi nga leen di soog a si yenn yi yaa ngi dégg. te ñaaw vraiment waaw malheureusement. jéere wuñ ko Ndella Madior Diouf yàlla bu ko kenn tëj kaso laa koy ñaanal ndax kaso kenn da koy yéene kenn. waaye li mu def nii mérité nañu tëj ko kaso. dans la mesure ay xale dee nañ te kenn xamul si yan condition lañ dee ñu dem suul leen tranquillement yaa ngi dégg mel ni que dara xewul yaa dégg kenn xamul si naka dégg naa si am jàpp nañ ci ay sept personnes ak moom. peut-être que dinañ leen defee tey peut-être nañ leen bañ a defee kenn xamul mm. waaye li leer ba leer daal mooy lii di ñu wax ci dossier bu dee comme ni nga ko waxee nii noonu la amee waaye defuñu dëgg defuñu yoon mm. te état moom xam nga la mooy dolo boo nekkul ci dëgg ah mu teg la si dëgg bi yaa ngi dégg chaque jour nga dégg benn ne su doole suñu jàpp su lu doyari mm. teg ko ci kaso bi kon léeg tamit dina baax waxuma ne dañ war tëj nii si kan dina baax bu ñu jàppee benn borom doole bu bu def lu jubali mm-hmm. ñu teg ko ci yoon moom mm-hmm. yoon def liggéeyam c'est important Abdourahmane Ibrahima rapidement ban gis-gis nga par rapport à ça. waaw li may wax rek mooy que mm-hmm. peut-être bébé yi dee ñoom lañ gis quoi. parce que ñoom ñoo ci ñoo ci feeñ. mais ñi nga xam ne ñoo ko doon liggéey am tamit ñoo ci bokk nañ ci ñi sonn peut-être jël nañ leen yóbbu mais bëri na ci ñoo xam ne ci ñoom soo leen laajoon xamuñu sax mbir mi nan lay doxee. te ki loolu noonu tey am na loo xamante ne ci day joué ci ñoom parce que Sénégal ku ne xam ne nan lay doxee. mooy ñëpp du ñëpp a xam droit wala ñëpp a xam yoon wala ñëpp a xam lan moo leen tënk tey emploi yi nga xam ne ñu ngi ko doon liggéey rek bëri na ci ñoo xamante ne xamuñu sax Ndella Madior lim yor lan la wala même suñu xamee lim yor lan la lan moo ne ci ginnaaw loolu maanaam est-ce que am na lu ko lu ko ci yoon tere ak lu mu ko ci terewul ñoom xam lu leen ci intéressé mooy que ñu liggéeyal ko weer bi dee ñu jël ci xaalis dem dundale seen njaboot wala ñu faje ko seen soxla léegi tey ñooñu ñu ngi leen di topp di leen yóbbu di leen sonal ñu loolu tamit moom moo leen ko teg lu bokkul ak effectivement lu bokkul ak ñi nga xam ne tey ñoo ci ñàkk seen bakkan donc man j'ai beau dire si ay Ndella Madior parce que ku ne xam ne li mu def kenn rafet loo ko fet parce que def ko ci yoon bu doon ci yoon la ko def mën nañ ko apprécier ak lu mu ci doon séntu mais amoon na tous les droits mais da ko def ci je me dëkk maanaam je m'en fous quoi mooy yoon yoon amul Sénégal lu neex waaye def ci contexte boobu la ko defee léegi le fait yoon am na Sénégal ba jàpp ko nag yoon war na mën a def li nga xam ne loolu la war a def ci moom ñun loolu la ñuy xaar mais bu nu bu man bu bu fekkee foofu la ñuy jógee maanaam Sénégal dañ soobantal euh, ba mu ëpp yenn yenn yenn yi quoi mooy que yu mel nii ak ay centre de santé xam nga tey yaa ngi gis l'évidence am na ci lu mu bind Baara Gaye centre de santé bu mu ubbi je pense loolu la ñuy xaar ci autorité yi mais nga nekk maire ci dëkk demal Mbour centre de santé bu amul ambulance pendant mm-hmm. nga nekk maire ci dëkk munoo mënoo fa indi sax sant munoo fa indi sax ambulance parce que loolu c'est honte te ñu ne yow jiite dëkk bi mënoo leen indil sax ambulance te bëri na ci ay gox yu mel noonu de nekkul mbuur kese de bëri na ci dëkk bi gox yoo xam ne amuñu ambulance amuñu centre de santé ñu dara te am nañ ku leen jiite de koo xam ne chaque fin du mois mu dem jëli xaalisam ñoo dund ak ay doomam maanaam munul apporter ñu ñam jiite dara dara dara te kook lan mooy njëriñam tey loolu foofu lañ toll. maanaam affaire Ndella Madior yi daa feeñ le quoi li ma wax keroog rek am na ñu ko gën a pur ñoo xam ne ay dirigeant la ñu ko gën a pur maanaam soo si nga nit sooy dund te amoo njariñ yow kër gi nga nekk soo fi génnee kenn laaj teew la yow xoolaatal sa bopp parce que amoo fa njariñ li nga nit noonu ngay noonu ngay noonu ngay mën a mesurer yow sa quintessence ci fi ngay évoluer kër gi nga dëkk sax boo demee voyager kenn laa laajteew la kenn nammu la bul ñëwaat parce que yow amoo doo njëriñ mm. kër ga waxuma laa nag nga jiite ab gox boo xamante ne amoo leen njëriñ pense que ñooñu ñu jiite nag ñoo war a xoolaat seen bopp ñu amal njëriñ askan bi njëriñ bu toll ni suñ bëggee faju ñu dem faju suñ bëggee suñu amee urgence ñu am ambulance bu ñu dugg même suñuy fay sax mais nañ am ambulance boo xam ne tey bu dara ne këtt ne jonn ñu mën ko ci dugal évacuer ko yóbbu ko mais lu toll ni Mbour amul ambulance loolu je pense que ne war nañ ko mën a teg waxtaanee ko comme ni ñuy waxtaanee mbirum Ndella Madior mii nga xam ne moom ay mbiram daa nit ñi parce que am fit yooyu àgg na ci nga jël ay doomu jàmbur man xam nga lan laa njëkk a wax mooy psychologiquement moom est-ce que sax moom nit la parce que man li ma mënul d'accord mooy ci yenn condition yi nga teg ci xale laalal leen ay mat laa teg leen image rek nekkul neexul xool ko fait mais waxuma la ngay dund nag ci ci ci ci ci lii boobu yow nga ne yow tu es conscient tu es consciente loolu gë ko gëm a fait ngay gis xale bu ne aw fii yow ñaari xale rek ci chambre ay seex rek dangay xoolaa seen yaay nan la leen mën a diriger nan la leen mën a yore te waa kër gi ñëpp a ciy jàpp boobu malaa nga yor ay li nga yor kenn xamul nu toll te ñi fay liggéey mënuñu leen tout à kii mu ngi koy wax mënuñu leen entretenir xale aw fii xale aw fii nga xool xale yi yow physiquement dangay xool xale yi xam ne dañoo feebar même soo nekkul hmm. même soo mais seen yaram rek xammee nga xale bu feebar xale bu buñ naan dafa xiiboon ni ñu koy tuddee dafa xiiboon xiiboon mooy xale bu feebar xale boo xam dafa am lu mu manqué te xale yi ñoom ñëpp boo leen xoolee dangay xam ne ñii am na lu manqué si ñoom léegi kooku ne kër nan la ko tuddee kër yërmande <laughs> astafurlah mën na xaw ma kër yërmande xaw ma du kër yërmande mais kër ga moom xale ya fa nekk am ah, dundew ñu yërmande mhm. parce que xale yi seen physique wanewul que ne ñii ñu leen di yor yor nañu leen ci yërmande xaw ma lu ñu mhm. manqué te je pense que bu fekkee dafa manqué moyen war na mën a renoncer mu xam ne lii bëgg na ci def yërmande mais amu ko mënu ko nga dellu ginnaaw wala nga woote au secours ñu dimbali si la même soo amul ay kii sax nga ñu xam ne yow li acte bu noble la même suñ ko waroon def te xamoo li ne sa ginnaaw mais acte bi am na lu ko taxoon jóg pour defal yàlla moo taxoon nga def ko donc nit ñi mën nañ la ci fekk si defal yàlla Sénégal am na ay nit yu baax de ñu mën a def te yàlla kase tax am na ñoo xam ne mën nañ def te yàlla rek tax duñ ci topp dara mais ñiy def nag te te leneen tax ñoo fuuf mm-hmm. mais ñooñu boo leen fekkee ñu defal la yàlla tax mais def bu dee yàlla taxul nag la ci lu mel nii fekkee dañ la war a topp ba ba dañ la war a topp teg la daan yi war a tegee sa kaw pour que beneen yoon keneen bañ ko defal. Hmm. loolu laa si amoon lu may wax. merci beaucoup Ibrahima rapidement gis-gis nga am par situation. voilà euh, Cruzita seen situation euh, déplorable moom la ñuy wax parce que euh, c'est c'est vraiment triste di gis ñi nga xam ni ñoom ñooy ay xale ay bébé di décédé ci yenn conditions yi mais man li man fi may waxee man je ne vais pas fustiger ki nga xam ni moom mooy Ndella Madior Diouf gaa li mu def c'est pas normal parce que loolu kenn mënu ko rafetlu mais man man li ma bëgg a wax moom mooy Ndella fan la jaar ban fit la am pour ubbi li nga xam ni moom mooy pouponnière yor ay xale amul autorisation circulation boobu ana ñi nga xam ne ñoom ñooy service yi habilité à contrôler euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy pouponnières yi. Mhm. contrôler ñi nga xam ne ñoom ñooy xale yi même bu fekkee Ndella Madior euh, le fait que dafa amoon pouponnière euh, umpul kenn ñun ñëpp xamoon nañ ko. donc ñun niñ ko xamee woon ñi ah, ñi nga xam ñoom lañ dëkk ñi nga xam ñoom ñooy petite enfance xam nañ ko donc waroon nañu mën a dem fi nga xam ni moom fa la nekk contrôler ba yenn yi du fa xew parce que tey jii bu fa yenn yi xewee bàyyi bébé décédé dañoo daaj dañ ko daal seetaan am parce que gis nañ mu yore ay xale boo gisee nit yore ay xale muy pouponnière wala ku am ay kayit wala ku amul ay kayit war nga ko mën a xam mm-hmm. parce que yow looloo tax ñu teg la fi te ñii c'est des enfants ñu seen bopp dara mënuñu wax mënuñu def dara mënuñu génn boole ni euh, kii def na ma li euh, ndee la wala si condition yi laa nekk mënuñu ko nit mooy jóge fee une personne responsable boo xam dañ ko dénk ay responsabilité mu ñëw vérifier ndax euh, déjà li nga xam ni moom mooy pouponnière bi mi ngi en règle am na ay papier yépp yi nga xam ni war na ko permettre mu exister déjà xool tamit li nga xam ni moom mooy condition yi fa xale yi nekkee donc man damay wax ni que situation bii ni Ndella Madior am na si part mais parc bi gën a mag ñi nga xam ne ñoom ñooy autorité yi ñoom ñoom ñoom ñoom laa koy teg parce que ñoom ñoo seetaan euh, ba lii xew fa parce que 6 bébé c'est pas petit tey jii nii euh, boo xoolee euh, boo demee bitim réew benn bébé sax bu fa desee décédé woon di nga gis ni ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ci réew mi dinañ jug def ay marche ñiy def ay ay rassemblement ñi def lu nekk pour loolu noonu bañ faa amati te benn bébé kese moom mooy décédé parce que ñoom dañu fonk li nga xam ne moom mooy bakkanu doomu aadama mais euh, boo boo ñëwee Sénégal day mel ni que euh, li mu lii bakkanu doomu aadama teguñu ko voilà y a trop de laisser aller tegu ñu ko fenn euh, beneen exemple tey jii ni boo yoree sa doom bitim réew nga yor ko yoroo ko si condition yu baax sa doom la yow yaa ko jur mais services sociaux yi dañ koy jël parce que yoroo ko yor bu baax te sa doom la à plus forte raison ñoo xam ne nekkoo nekkoo xam ne moom mooy ay parents am dañ la ko dénk donc war na am suivi boo xam ne war na ci am ba xale yi du ñu am yooyu le problème euh, ba ba ay six bébés di si décédé man j'ai dit que six bébés c'est trop euh, c'est c'est un nombre excessif parce que mm-hmm. dafa bari six bébés dafa bari benn bébé sax dafa bari waxatuma six bébés yoo xam dañu décédé ñu ne dañ leen enterré clandestinement mm-hmm. loolu c'est une affaire telement grave euh, sénégalais man je je me ñu que jëluñu ko euh, dañ ko jël à la légère en parce que tey jii man je me dis Ndella bu nekkoon euh, benn opposant wala mu nekk koo xam ne dafay xool fauteuil présidentiel bi wala dafay porter préjudice ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoom ñooy état bi tey jii nii pouponnière bi kenn waxatu ko xool nañ ko xool nañ li Ndella Madior di def gëstu nañ li muy def ba génnee pouponnière bi ba fexe tëj ko ci kaso bi voilà donc nag moyen yooyu ñuy def ci ñi nga xam ñoom ñooy seen ay opposant di ko def ci ñi nga xam ñoom ñooy seen ay adversaire politique nañ ko def ci ñëpp parce que tey jii nii c'est pas comme comme le Sénégal nit mën a ubbi pouponnière pendant des mois wala peut-être des années di si yor li nga xam ne moom mooy ay bébé ba ay bébé di si décédé te kenn waxu si te jamono ji ñu si wax sax gisuñu influenceur bu ci wax gisuñu politicien bu ci wax gisuñu porteur de voie bu ci wax gisuñu kenn ku ci wax mel ni que ci une affaire boo xam ne affaire la boo xam ne euh, gravul daal parce que euh, ay bébé yu décédé loolu dara euh, gisuñu daal li nga xam ne peut-être moom mooy jug bi nga xam ne war nañ ko jug ci mbir mi tey jii nii keneen ku mel ni Ndella Madior mën na xëy suba dem dem def li nga xam ni moom mooy pouponnière dañu naan dëkk bi amul loi voilà voilà dañu naan dëkk bi amul loi te ça c'est extrêmement grave parce que ay ay bébé yoo xam ne tamit dañu décédé loolu c'est pas à la légère beneen beneen constat bi bi nga xam ni euh, dama koy def moom mooy le fait que nga jël sa doom yóbbu ko eh, fi nga xam ne moom mooy ci pouponnière wala ci orphelinat jur nga sa doom d' accord munoo ko yor d' accord da ko yóbbu ci orphelinat mais xoolal au moins fan nga koy yóbbu en fait parce que tey jii nii mën nga bañ a am les moyens yor sa doom mais mën nga dox sa tànk dem ba fi nga xam ne foofu ngay dénkaane sa doom xool ndax mi ngi ci ay conditions yu baax wala déet loolu xanaa mën nga ko yow mi nga xam ne yow yaa jur sa doom mais jël sa doom dénk ko nit bàyyi ko fa mu nekk ci yenn condition yi te seen te on voit que ni nekkul seen parents yi ñoom ñoo dénoncé ñi doon liggéeyee ci foofu ñoom ñoo dénoncé donc seen parents yi amatuñu benn bët boo xam ne ñi ngi koy xool ci seen doom yooyu abandon laa ko tuddee te mënoo jur sa doom aussi ba pare abandonné ko mën nga ko joxe orphelinat d'accord parce que tu n'as pas les moyens was parce que am na leen loo xam ne tënk na la ba mënoo yor xale bi mais au moins ñëwal nga xool di xool xale bi au moins parce que xale bi il n'a pas demandé à naître yow ko hmm. jur donc da nga am ay responsabilité envers moom euh, voilà bëgguma nag euh, li nga xam ne moom mooy euh, monopoliser parole bi choses yoo xam ne warul am ci dëkk yoo xam ne wala yu mel ni Sénégal wala bu fi amee dañuy nañu faire en sorte que ni dootu fi amaat mu doon la dernière fois moo maanaam ñu jël ay ay mesures yi nga xam ne moom la ci war a jël ba yenn yi du ci am Cruzita. Mhm. Euh, a